ci ëpp am na leneen loo xam ni genneku nañ ko ci mooy jokk bokk gi ci nekk ndax bokk bari na bokk yoo xam ni fii la ñuy daje di fi gisante di fi nemmikonte di fi waxtaanante te kenn ku nekk lu jotaay bu yàgg gàtt gàtt mën ngaa jëlee xam-xam mën nga fay yokk xam-xam ci ki nga dendal te sama waajur ma dellu si Abdoul mu Cheikh Modou Fadel nga xam ne saa su nekk ci wetam la ñuy nekk ñu ngi amee ci moom ay xam-xam yu bari kon jataay la boo xam ni mën nañu dafa fees dell ak i ngëneel dafa fees dell ak njëriñ bi ci jiitu wax naa ko mooy yëg gi nga yëg sa diggante ak sa boroom mu ne delloo ci tasawuf ne delloo ci ak taalibe loolu am na ci jataay bi ñaareel ba ñu ngi fiy dund sëriñ bi dund gu wér wér ceeg ngi itam ak jokk bokk gi loolu lépp nag Cheikh Madou Mountakha ci xisam bu rafet ak bëggam lu baax moom moo ko xalaat taxawal ko daal di koy nag teg ci loxol nag xisbu tarxiya ci jiitu sa yuusu saa su at bu nekk mu am ay ay rénovation ay yeesal yu am solo yoo xam ni day gën a noppal sëriñ bi ndax sëriñ bi ñu ko gën a noppal rek mu gën a baax ci ñun ndax mag la te war a ñu bàyyi xel loolu te lépp ak xolam la topp ak bëggam waaye du man kon nag lu ko gën a may jàmm wala lu ko gën a noppal noof laay sax yombul waaye lu mu gën a oyof ci moom rek mu gën a baax kon ñi koy ñi koy ñaanal yàlla suñu borom mu bàyyi ko fi guddal fanam barakati rasulillahi alayhi wa sallam ba liggéey bi nga xam ni yeneen ko liggéey mu àggale ko di ndokkeel ñëpp ci weer nga xam ni mooy weeru koor weeru koor weeru alxuraanul karim la weeru julli la weeru tuub la weer la woo xam ni ci la laylatul xadar nekk laylatul xadar xayru min alfi shahrin yàlla wax ci alxuraanul karim kon weer la waxal weeru gëneel la su ñu amee xéewal ak tawféexi sëriñ bi di ñu ci wetam ñuy nekk ak moom di dund sëriñ bi loola loola ndimbal la ci ñoon kon na yàlla yàgg te wér yàlla yàgg te sax bu barakati rasulaay alayhi salaam salaam jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Thioro Mbacké ci kàddu yi am solo yooyu